asalaamaaleykum sunu mbokk internet yi nga xam ne yéen a ngi ànd ñun ci sbt media point com amaan nañu mbégte ak kontaan ñëwaat fii seen émission coowal politique tey nag ñi nga dalal benn politicien bu dëkk fii ci Pikine ñu koy wax Pape Thiam Pape Thiam sbt media ñu ngi lay nuyu waaw maa leen di fay sbt media di leen nuyu di leen ziar euh, di leen jox seen wàccuwaay di nuyu ñëpp ñuy euh, les téléspectateurs du site euh, sbt media di leen jaajëfal yéen ñëpp tey boo doon wax ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan te te xamuñu la ci maam nga defal leen présentation wax la ne yan fonction nga yor ci Pikine Nord ci mairie bi. waaw man de Pape Thiam lañ may wax mu nekk agent municipal bokk ci ñi euh, ànd ak Amadou Diarra bokk ci ñi nekk ci entourage nekk jeune mu responsabiliser ma jox ma le contrôle de du bureau de de gestion quoi de la mairie de Pikine Nord waaw loolu daal laa fa occupé comme fonction. Mm-hmm. Mm-hmm. boo ñu doon wax euh, kañ nga dugg ci politique. bi may dugg ci politique je pense que c'est à 2017 2016 2017 boobu laa dugg ci politique fekk euh, affaire politique mosuma intéressé mais dama dama doon def business bi jënd ak jaay yoroon benn boutique fii ci Rudis bi Pikine Rudis bu doon jaay affaire u Jesner ma amoon sama benn xarit bu tudd Bouba sàll fekk daan ma fa fekk den ma fréquenté ñuy waxtaan benn jour ñuy wax waxi politique mu ne ma dafa bëggoon ci élection locale yi ñuy ñëw ma ñu jàppale Amadou Diarra waaw léegi comme man mosoon naa xam Amadou jaraa ci def lu baax ci amandaam bi weesu man sax affaire politique intéressé wu ma ba xaw ma woon sax ba xam Amadou Diarra wàcc na wala yéeg na ba tax na bi ma ko waxee ma sawar ci lool parce que dama gisoon mu daan def ay acte sociale disponible comprendre que di jàppale ñoo xamante ne man xam naa leen bon loolu nag touché woon trop sama xol buuba wax ma ko ma ne ko noonu loolu du ma ci sax hésité euh, après ci la ma buuba wax ne ma nañ fa ànd ñu ànd fa ñu gisante depuis lors ba léegi maa ngi ànd ak moom mhm. loolu moo ma dugal ci politique politique bi du ambition mais mbëggeel la ko ci sama diggante ak Amadou Diarra mhm. ok

xarit la moom moo ñëwoon daan ma fréquenté sama place ñu fay waxtaanee lu ne ba benn jour ñuy wax waxi politique mu wax ma proposé ma amatu Diarra ma ànd ak moom ci amatu Diarra ba ma xamante amatu Amadou Diarra mbaaxam at oyofam bi may wër ci nit moom laa gis ci moom ba tax na boobu ba léegi teg tàggale koo moom moom waaw boobu ba léegi ñu ngi ànd quoi tàggale koo wuñ. kon su ma la déggee daal yow amoo benn ambition politique. non non non je un homme d'affaires te maa ngi ci yoon bi depuis ma bàyyi jàng bi ma paree ci sama jàng boog ba pare ba léegi affaire business laay def jënd jaay waaw loolu moom sa nekk sama sama sama sama objectif sama ambition. Mhm. Euh, mu mel ne que amoo ambition politique ba pare képp koo xam ne génn na wax Amadou Diallo rek nga commencé génn yow di poster ay vidéo di ko saaga wala di ko xas la ma war a loolu. non du ma saaga kenn mais parfois xol mooy wax doomu aadama gore dafa baax. Mhm. dafa baax trop ba tax na euh, nit boo ko jegewul doo xam moom mooy kan man dara fëkkul sama bët gisuma lu waay nit lu waay am lu ma mën a jaaxal parce que damaa gëm sama bopp xam naa li ma war a représenter ak li ma war a jëriñ sama réew même bu dul ci wàllu politique parce que dama am vision wu di investir di dugg ci industrie di dugg ci commerce loolu moom mës a nekk sama sama objectif waaw mais Diarra euh, damay gis ne saa su ne bu ñu koy saaga li tax may sama xol di tooy ba may jug di revendiquer mooy damay xam ne man ba ma dalee gis nit bu humble ba ma dalee dalee gis nit bu mat ba ma dalee gis nit gisaguma nit bu mel ne amadu Diarra ci xol bu yaatu ci oyof ci loo xam dafa naturel loo xam triché wu ko Amadou Diarra amul sax ay xarit yu mu maaseel ay xale ñoo koy fréquenté fu mu toll ñoom lay jouer pele ñoom lay waxtaanal ñoom lay weranteel ci un maire un homme boo xamante ne dimension nationale wala internationale c'est-à-dire Amadou Diarra Pikine ci boppam xamaguñ moom mooy kan parce que am na expérience boo xam ne at expertise boo xam ne boo nekkee moom ngay xam moom mooy ban genre nit la mais terewul loolu lépp parfois da koy dëxëñ di ànd ak xale yi di kaf ak ñoom di réew ak ñoom xam-xam bu mu am mu transmettre leen ko ah ñaax ki ñaan lool moo tax su ma gisee nit buy ñëw di ko joxoñ baaraam wala muy ñëw di pour dóor ko ay coup point poing du ma def lu dul man jéem a taxaw euh, défendre ko xeex ak kooku di def loolu waaw parce que du dara moo tax ma koy def Amadou Diarra moom si boppam xam na ne namm ma am bëriwul lu ma namm donc du man man maay ñëw di ko di ko defendre parce que dama dama koy subooru wala dama koy dunguru non non non xol bi la dama ko def comme sama mag bu ma bokkal ndey ak baay waaw. mbokk yi nga xam ne yéen a ngi ànd ñu ci SBT Média seen émission coowal politique ba léegi ñu ànd ak ki nga xam ne si moom moo di Pape Thiam euh, mu mel ni que point boobu moom leer na euh, tey boo ñu doon defal euh, ki nga xam ne si moom mooy bilan monsieur le maire di bi nga xam ne jël na ko mairie bi ak léegi maanaam lan la fi defagul. waaw xam nga xam nga parfois sur le plan éducation def nañ ko fi surnommé nañ ko fi le le maire champion en éducation bu fekkoon ne compétent wu sur ce domaine duñ ko ko wax comprendre nga ce maire champion en en santé aussi de même bu fekkoon ne compétent wul sur ce domaine duñ ko ko wax boo demee si acteurs yi ci ci ci acteur de développement yëpp acteur u santé acteur u éducation ñoom ñëpp nga def ay investigation ci ñoom dinañ la wax ne la mosuñoo gis maire bu mel na Amadou Diarra ci foofu laa yem leneen li mooy infrastructure boo seetloo ci wàllu environnement gis nga rudis bi aménagement bi mu aménagé école euh, muru école bi nga xamante ne dañ fa daan sànni ay mbalit at di fa saw at yooyu mu ñëw matérialiser ko aménagé ko ba nga xamante ne fi mu toll nii ku nekk bëgg na faa toog naan kafe wala nga bëgg faa toog euh, waxtaan donc maire bu am vision la maire bu am ngëm-ngëm la boo seet boo seetloo temps yi ci jamono bii gis nga rond point yi ni mu ko defaree rond yi nekk ci Pikine Nord audace ak vision parce que Amadou Diarra boo koy boo koy boo koy naataableeg yeneen wala nga koy nga koy méngaleeg yeneen yeneen moroomu maire am commune yi yu nekk ci Pikine bi yëpp day mel ne c'est lui seul ki est le maire de Pikine moom kese ngay dégg turam réalisation moom kese ngay dégg ci commune bu ndaw bu mel ne Pikine Nord gisoo déggoo fi kenn amul kenn beneen maire boo fi dégg vision boobu mu am expertise boobu mu am at boo xoolee làmp yi mu taal d'une valeur de vingt six millions te chaque année am na lu def ci lamp yi am na budget bu muy génnee pour làmp lampe moom état moo ko def. non non non dafa am lampe boo xamante ne mooy solaire yi solaire dafa am euh, commune bu ci nekk dañ lay jox quota ñu jox ko quota mu taal ci diggante ñi nga xamante ne bon bon école yi mooy. Euh, mbedd yi jëm yi jëm ci école wala mbedd yi dem ci dispensaire wala mbedd yi dem ci ci jàkka yi loolu moo nekkoon priorité bi ñu ko indilee làmp yooyu moom la taalee loolu mais terewul def na vingt six millions ci ay lampe led yoo xamante ne boo demoon ba ville de Paris am na sama benn xarit bu tudd sama sax boo xamante ne moom mi ngi Paris daf ko doon dafa doon dafa doon euh, filmer lampe yi nekk foofu naan lampe yi la Amadou jaraa indi ci commune de Pikine Nord buñ la ko filmer ville de Paris ci boppam lampe led yi ñoo fa am te sama xam-xam bu gàtt damaa jàpp ne Pikine Nord moo njëkk a wu ci lampe led yi Pikine Nord ci dans le territoire sénégalais kon maire bu mel noonu maire bu bëggee noonu lu baax maire bu amee noonu ngëm-ngëm jàpp naa ne dañ koo war a euh, tam-tamal jëm ko euh, ak yóbbu ko ci leneen lu ëpp doole parce que jaraa Diarra dafa dépassé commune donc man su ma gisee képp kuy ñëw di ko diir mbagg même diir mbagg baax na parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax dafa tiiraay maa la ba léegi nii am na ñuy xeex ak moom te nekkatu fi nit bu baaxee par force dina am ñuy ñëw di ko jéem a ternir wala ñuy kii mais dafa war a seen. waaw yi moom lamp yi moom ñu bëri nee nañ ko kumba am ndey kumba amul ndey moo ci am parce que côté yi la taal côté yi taalu ko. waaw xam nga xam nga xam nga. xam ne adversaire politique bi ñoo fa nekk yëpp benn benn koñ taalu ko. xam nga ba léegi nii dañoo nekk ci démarrage taal lamp yi. làmp yi dafa c'est-à-dire dañ ñoo yàgg xam nga promoteur si wàllu prom gars yi ay promoteur ngay ngay la la mairie di liggéeyal comme. ñu dem ba marché bi lancé marché bi marché am ku am promoteur bu ñu ko jox. appel d'offre comprendre nga léegi promoteur boobu mooy ñëw joxe bu joxe li mu joxe mën naa baax comme mën naa mais liñ naan caga kenn du ko tax kenn du ko tax kenn du ko nax ñaari yoon wala kenn du ko nax ñetti yoon noonu la demee. mais chaque année dina am quota bu muy génnee budgétiser ko pour lamp yi ñuy def ci conseil municipal yi am na ci ñoo xam ne ay opposition ci opposition bi lañ bokk xam nañ li may wax ñoom nañ ko approuver. parce que am amul lu ñuy benn benn benn lu ñuy voté te ñoom approuvé wuñ ko ñoom ñëpp a ci ànd en consensus pour ñu mën ko réaliser. donc moom taxawul croiser la bras di xool chaque année dina am lu muy def ci selon ci doole commune bi ren vingt 26 million def na ko ci làmp yi te c'est spectaculaire gis nga ne lépp a ngi tàq boo nee am na ñeneen yeneen zone yoo xam ne dañ faa egg seegul mais ñu ngi ci. parce que bañ koo bañ ko commencé yàggul phase test lañ njëkkoon def lamp yi ñu njëkkoon indil dese naa leer ñu ne ñu retourné ko promoteur bi mu dem utiwaat lamp yu gën a leer at yu gën a baax loolu moo tax affaire bi xaw a retardé nii mais fépp ay am ville lumière lay nekk incha allah. mu mel ne que li nga wax ci wàllu éclairage bi moom loolu moom doy na mais ci wàllu éducation laa bëgg ñu taxawaat maanaam tey boo nee éducation ne la maire xaw wax éducation lan la ci def lan ngay wax. non xam nga c'est que bu du ma bëgg di parfois di xuus ci loo xamante ne maîtriser wu ma ko mais man li ma la mën a xamal mooy éducation même jamono baytaal euh, euh, def na ay photocopie am joxe na ay photocopie yoo xam day ànd ak fax at yu tout loolu gis ngeen ko fi ah ay photocopie dajale na tous les inspection inspection académique bi yëpp jox leen ay ay ay matériaux ah chaque année élèves yi dina am lu mu jàppale seen école dina directeur école yi am na lu mu leen di jàppale je j'ai pas bien maîtrisé mais loolu xam naa ko ci ci wàllu éducation cest à c'est pas évident ñu def ko le maire champion en éducation du ma bëgg di xuus ci nag loo xamante ne dugguma ci bu baax parce que ku nekk at sa waaw. maanaam su ma waxee loolu mooy parce que école 5 bi gis nañ ko miir bi defaraat nañ ko tabax ko gi mu mel ne maanaam Pikine waaye ñu ci bénéfice mais promoteur bi nga xamante ni moom moo defar miir bi moom bénéfice wu parce que ba waa j'ai pas bien maîtrisé ce que tu viens de me de prononcer là parce que am na loo xamante ne moom mooy loolu comme ay promoteur beeg nii at noo loolu maîtriser wu ko sérieusement du ma xuus ci loo xamante ne vraiment maîtriser wu ma ko bu baax. ñu noonu seen émission coowal politique la ñu dalal ki ni moom mooy Pape Thiam nekk ci ki nga xam si ni moom mooy monsieur le maire Amadou Diarra euh, ma leen di wax ne continuer ngeen abonné seen seen YouTube ngeen bës seen tous cloche am yeneen ñun Facebook Twitter ak Instagram bu leen neex ngeen ànd ñun si 3W sbtmedia point com maa ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi safa SBT Média mais mu mel ni euh, dégg nga coow li acteurs culturels yi nga xam ñoo nekk Pikine Nord ak euh, ñi nga xam si moom mooy maanaam monsieur le maire ci ci problème mu théâtre Verdi bi lan nga ñu si mën a leeral waaw théâtre verdure bi damaa jàpp ne euh, dëkk boo gis ci àdduna avancement lay ñaan te boo amee maire bu am expertise am vision war ngaa mën a euh, war nga mën a am beneen vision boo koy xoolee bu dul di ternir li muy def théâtre verdure bi yow bu fekkee Pikine Nord nga dëkk war ngaa xam ne yàgg na fi lool te recette yi mu war a dugal amu ko parce que mën na am c'est-à-dire cest amul amul xaw ma nan laa ko mën a waxee Euh, xaw ma nan laa mën a prononcer mot bi je perds les mais boo gisee promoteur bu ñëw hmm, bëgg a xool benn affaire mu ne dama ko bëgg a valoriser dama ko bëgg a valoriser yokkaat dayo bi yokkaat am anam yi yi war a nekk ci biir pour mu mën a dugal lu mu daawul dugal ci recette kooku dañ koo war a rafetlu dañu war a saluer loolu parce que verdure bi boo seetloo depuis plus d'une décennie ay abalaate lañ koy def parce que kenn du fi ñëw du fi deg sa xaalis balaa nga koy ñëw di fay sa xaalis da ngay dem ci salle bu sophistiqué nga fay fa sa xaalis mais amul sécurité amul kii te xam nga architecture bi sax ci ancien ancien c'est dans l'ancien comprendre nga mais boo dem boo gisee promoteur bu ne man dama ciy def sama xaalis di di recouvrir recettes yi à soixante quinze pour cent yéen ngeen am vingt cinq pour cent vingt cinq pour cent yooyu daawuñu ñun cinq pour cent sax daawuñu ko am parce que daawuñu am recette ci fee verdure bi kon donc boo gisee ku la ko mën a matérialiser te bu fekkoon Amadou Amadou Dia sax daf fiy toog fii ak dix ans quinze ans ñu mën a wax mais fii ak quinze ans lañ wax fii ak 15 ans lay recouvrer ses recettes terewul si recettes yooyu ñun lañ ciy am à vingt cinq pour cent ñaata mooy war a mën a dugg par na fi dugal cinquante millions par année wala wala wala lu ko ëpp ça dépend ci événement yi muy yi am te loolu amuñu ko woon bu ñu amee promoteur bu ñu ci mën a jàppale sinon bu ñu ko bàyyi woon fii en rade lañ ko fii bàyyi kenn du ko defar ñu bàyyi ko nii xale yi di ci foog nii nii muy kenn du xam nu mu demee donc boo amee ku la ko matérialiser di la ci dugalal recette ne la fii dans quinze ans fii ak dans quinze ans Amadou Diarra day xooli leneen lu bokkul ak ay mairie kon intérêt nekku ci kon ñoom bu ma gisee ne ñu ngi ciy def ay conférence de presse pour luy diaboliser wala quelque chose damay xam ne ñii seen poosa leen fi bàyyi wala seen xel mu gàtt moo leen fi bàyyi wala ñëw bañ nit rek pour bëgg koo xeex loolu kese la iñaan soxor parce que Amadou Diarra fii ak deux mille vingt ans un fekkee ñoom dañ ne dañ koo fay bëgg a jëlee kon koy loolu amul kii am amu ci intérêt lan la ciy jaay dafa mën a jaay dugal ci poosam même bu ko jaayoon ci commune bi la la ko dugal mais jaayu ko dafa ñëw woo woot promoteur promoteur ne dama ciy def xaalis su ma paree nga am 75 pour cent commune bi waxul Amadou Diarra am de dana commune bi mooy am 25 pour cent pendant 15 am Amadou Diarra moomul commune bi. Mhm. mu ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs yi ñoom li ñu wax rek mooy protocole d' accord bi la bëgg a gis. c'est-à-dire c' est pas forcément ñoom ñu war a gis protocole d' accord ñoom ñu c' est forcé. est for non c' est pas forcé ñoom ñoo ko fal. ñoom ñoo jël Amadou Diarra ne ko yaay suñu maire ñun ñëpp ñun ñoo dajale suñuy carte jox ko yow la ñu wóolu liggéeyal ñu mu ngi ñuy liggéey la moo tax ñu naan ñu kan la ñuy rendre compte ñoom non ma. kon daal su ma la déggee mooy ñi nga xam si ni ñoom ñoo def conférence de presse ñoom ñëpp ay adversaire politique am bëgg koo. adversaire politique duñ ay acteur culturel ñi ma fa gis seen bopp yëpp kenn gisuma fa kenn ku fay acteur culturel ay haineux ñoo fa nekk ñu soxor. Ah, loolu doy ñu soxor ñu iñaan ñoo nekk Pikine Nord ñoo xamante ne yéenewuñ kenn jàmm Amadou Diarra barke Serigne Touba moo leen gën ñoom ñëpp parce que nit mënul nekk di liggéey ngeen naan ko liggéeyut ngeen di toog naan liggéeyut lan la fi def lan la fi def ba mu commencé di def ngeen bëgg a yàq li mu def ngeen ne lan la fi def si wàllu matériel boog loo xam ne dañ ciy teg loxo ñett chaque jour loolu ngeen lan lañ daan wax lan la fi def lan la fi def léegi mi ngi wane yoo xam ne dañ ciy teg loxo bu njëkk ba sax yi mu daan wane mën na am ci suuf lañ ko daan liggéey comprendre nga mais léegi lu ñuy teg loxo mu commencé def tàllamp yi defar rond point yi defar kii bi dañ defar verdure bi nga ne du ko fi defee parce que xam nga ne arrangé wu la ay nii soxor la yii du politique gis nga politique ni ñu bëgg a jàppee politique moo dul man bëgguma nekk sax politicien yi politique lekkante la soxorante iñaanante jamante ñun ñoo talul loolu te Amadou Diarra talul loolu Amadou Diarra li muy am lii ci gën a ndaw bu ko yàlla fayee xolam président sax mun na koo doon waaw. ma leen di fàttali ba léegi yéen a ngi ànd seen émission coowal politique bokk na si suñ Pape mu mel que parce que opposants sax nee nañ que euh, maa bi ñu ko faleeg léegi defu fi dara bàyyi ba maanaam di bëgg a jeex muy profité di liggéey est que nekkul day jéem lëre pour gañawaat mairie lu dul wër di wax lu leen leeru at di ràmbaaj ak seytaane. ñoom falaguñ leen kenn falu leen mais xam nga par xam nga kaña jikko kaña lañ yor dañuy wër di yàq rek. yaa ma dégg bu baax. xam nga kaña moom amul benn utilité lu dul di wër di yàq ñoom ay jikko kaña lañ yor. kuy liggéey ku at kuy wax yamuñu weer bu dee du ñu résultat résultat. Amadou Diarra liggéeykat la la preuve nekk na fi maire. première mandat hmm? nekk fi député maire chargé de mission à la présidence nekk chef de cabinet du pré du ministre de l'éducation nationale yooyu yëpp mu dajale ko nekk ko hmm? nekk fi député nekk fi maire daanu yoru dërëm bu doon sàcc la day day tabax ay étage at yor ay 4 x mais lu mu am da ko dellowaat ci askan bi bu daanuwaatoon suba barki sëriñ Tuubaa du yor dërëm nit bu mel noonu la nit ñëpp di yor jikko yonent bi la yor xol bi ñeneen ñeneen ñi am moom mu ñàkk moo ko gënal population Pikine Nord ñoo ko ameel njukkal barki sëriñ Tuubaa waxuma ak nag ñooñu nga xamante ne seen xaalis xaalis artificiel yi xaw ma fan lañ jëlee seen xaalis seen xaalis lëndëm lool kenn xamut lu ñuy liggéey naan ay pétrole lañuy ñuy jaay ñu jaayuñu tus li ñuy liggéey nañ ko lañ ko leeral ci ci nit ñi ñu xam ko seen làmmiñ ñu rëy yooyu mënuñoo convaincre kenn ah, la ah, la sale nag pour nga sal pour nga pour nga defaraat ko da nga koy da koy da koy da koy euh, pour nga pour nga blanchir ko da nga koy dépenser ñun xam nañ seen seen système dégg nga bu baax ñooñu convaincre amuñu dara lu ñu mën a convaincre mu mel ne mu mel ne ñu ngi jëm ci cappaandawal émission bi léegi dañuy gën a Pikine Nord nag ñëw ci tolluwaayu réew mi réew mi maam su ma la waxee tolluwaayu réew mi mooy fan yee yokk nañ fi ceeb bi yokk fi yu bëree bari ndax nga gisee loolu. ah Sénégalais fal Macky Sall di ñoo ko fal avant les élections boo musaan a toog jotaay boo defee sondage quatre vingt quinze pour cent wala quatre vingt dix pour cent yëpp dañ daan saaga wala ñuy xas Macky Sall élection jot ñu votal ko ndax junni wala wala mille deux cent lu ñu lu ñu dal ñun ñoo ko teg suñu bopp la sénégalais est foo ñun ñoo foo ñun ñoo gëmul suñu bopp ku ci nekk sa poos moo la yitteel ku ci nekk sa image moo la yitteel chaque jour yaa ngi bëgg a yàq sa moroom pour feeñ yàlla nañu yàlla musal ci loolu moo tax lu ñu dal nañ ko assumer qu'on assume les responsabilité waaw. mu mel ne que fan yi maanaam wàllum rey bi bëri na ma violence bëri na naka nga gisee loolu ba ñu ngi wax sax naan peine de mort dañ ko war a appliquer ak gisee loolu. xam nga yàlla moom bu bu bu bu rëddee nga effacé mu rëddaat nga effacé mu rëddaat nga effacé yow lay mujjee effacé yàlla moo fi teg loi teg fi ay ay condition am ne nit bu defee lii lii lañ ko war a def ñun ñi nga xamante ne yàlla nee nañ nee nañ moom moo ëpp yërmande ñëpp ah moom moo ëpp yërmande moom mu ñu créé moom moo fi ëpp yërmande. ne ku rey nañ la rey moom moo ko wax ku rey nañ la rey ku sàcc nañu dagg sa loxo moom mi ñu créé kay li tax mu wax ko moom moo ko xam ñun ñu ne dañoo am yërmande léegi ku rey waruñu koo rey dañ koo war a yërëm wala dañ koo war a kii ku rey ku dañ laa war a rey bi ñu fa bëggee loolu jóge fi ku rey nañ la rey amul ay sécurité Sénégal amul sécurité boobu amuñu doole boobu amuñu ay caméra cachée fu nekk ñu ko fay rek mënul nekk am naat yeneen priorité yu fi nekk. donc ku rey nañ la rey bu ñu bëggee loolu close ku rey nañ la rey waaw. donc fi jeexalee émission bi bokk na ci mooy maanaam Marzeng en comportement bi ni mel ni margin mel xar-xaram Marzeng nga xam ne oto yi mënuñ jàll mun mënu jàll naka nga gisee loolu. waaw xam nga sérieusement parfois côté boobu dafa xaw a sensible parce que les agents de de l'OVP sérieusement parle chaque jour damay nekk ak ñoom damay gis ne ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan. pour jagal marché bi yaa ngi may dégg bu baax mais anarchie bi du du tey la commencé du démb du bërki démb anarchie bi marché zinc bu fekkee yàgg nga Pikine xam nga ne yàgg na fi bien vrai que ne maire dañ ko def dañ ko fi teg pour mu defar ñi ngi defar chaque jour ñi ngi def supervision bi hmm? mais masla dafa baax xam nga parfois nga fekk koo xam ne table la yor. Hmm? table bi mille cinq 1500 moo ci nekk mais ci par guddi ay doomam ci la ñuy reer ci lañ yaakaar nga ñëw bugg ko dëgër piir wala nga bugg ko bundu xataal est-ce que xam nga ne ay population Pikine Nord bi ñun bu ñu demee di réorganiser marché bi ñoom ñooy taxawaat naan da ngeen a soxor waa mairie da ngeen a soxor nii rek ngeen fi nekkee lekk xaalisu jàmbur yi te ñoom ci boppam après ñooy wëlbatikuwaat sànni xeer meer loolu moo ma jaaxal. ñoom ñooñu indexé ñun bu ñu ñëwoon sax di def yaa gis yeneen politiciens yi ñëw di filmer di jaay seytaane ko wëyu ñoom bu ñu bu ñuy defar ñoom ñooy diaboliser bu ñu toogee croiser bras ñoom ñooy diaboliser nga naan ñii dañoo ñàkk yërmande bu doon sa yaay la doo ko def nii bu doon sa nijaay la doo ko def nii boo defaree ñu sànni la xeer boo defarul aussi ñu sànni la xeer la léegi léegi comment faire. dama war solution bi léegi. lii solution bi mooy ñu trouver benn consensus ñun ñëpp association yi délégué de marché yi délégué de quartier yi ñun ñëpp ñu toog autour d'une table ñu toog ak maire ñu waxtaan ñu d'accord ci dara xam ne ñun ñëpp ñoo ko d'accordandoo ñu defandoo ko ay see yeeg ñëpp dugg ci waaw. mu mel ni que élection locale yi pousse nañ ko poussaat ko ba léegi nii nii sax kenn xamugul maam date bi kañ la que Pikine Nord bëri na ay adversaire politique mën nañ ci tudd kenn rek comme Lamine Gueye nga xam ne actuellement nii moom mooy seen potentiel adversaire actuellement ni ma ko mën a waxee. potentiel adversaire. waaw ah, lu tax. ndafa rëy Lamine di wax rek lamin Gueye Sonko la rek ci euh, présidentielle bi position son positionnement Sonko la la la nekk nii te Sonko sax du ma ko tëkkaleeg Lamine Gueye parce que Sonko am na xam-xam te Sonko day wax lu nit ñi di tekki Sonko expérience am. kenn dootu ko natable Sénégal ñëpp xam nañ ko bien vrai que ne même bu fekkee day jël ay trois ak quatrième position sax xam nañ ne euh, bu buñ ko delloo li mu expertise am yëpp ah war na mën a nekk dara mais koo xamante ne interprète chinois nga xooma lan lañ wax kenn xamut foo jëlee sa xaalis nga tëb tëb xëy cëpp xëy cëpp la depuis Pikine na non mënuñoo sonal kooku man maa ko jël en main barki Serigne Touba jaraa daf ma naan la mu war sonal nga waaj yi bàyyi ko jaraa ci boppam daf ma koy wax. ma ne ko non parce que du ko bàyyi mu fi nekk di jëppi jëppi du dara doo moroomam te dinaa ko wan na yow doo moroomam ñun xaalis jiitaluñu tiitaluñu xamuñu lan mooy loolu. inondation bi nag def na Pikine noonu lu ren. inondation fi dara dama koy def fi dara inondation yi wax naan ay inondation ñun fekk nañ ko fu muy demee yóbbu ay moto pompe yu yàqu ay nitam taxaw jaaxle xulli seeni bët ñu indi ay moto pompe pompe foofu yëpp pompe wu fi benn koñ te nag gis nga ñun inondation wu ren fii la ñu fekk ñoo fa ñoo ñoo assister la la population inondation bu daaw ñoo assister la population bu daaw jéeg anamu woon boobu moom anamu woon. la moo tax muy soog a ñëw te dëkk fii. ah doole pour ñoo jëlee leen. déedéet. gis nga xam nga xaalis du xaalis mooy mooy politique non non non non yi toll dootuñ foo ñëw di leen jënd xaalis di leen war ne dama leen di jënd moom na dem jënd ñeneen mais Pikine Nord mënu fee jënd kenn parce que li jëntiwuñu ko dañ koy lekkal xaalisam ba mu pare mu dem Sadio moom il n'est pas un un leader c'est un chef boo gisee ni muy dàggasanteeka nekk ci groupe bi di xulook nit ñi bu demee ci télé yi du war a wax programme du wax wax waxi programme de. Amadou Diarra lay wax ay dee aane sërëbaateeg non man waa jooju ma fan la jàngee quoi. non moom ñëpp ñëpp yëg nañ ko Pikine Nord moom donc loolu moom nekkatu fi actualité ay enregistrement yooyu nekkatul actualité Pikine Nord xam nga enregistrement am na téléphone yoo xam ne c'est automatique da wax téléphone muy enregistré c'est automatique. léegi waa ji nekk fi di la fenal chaque jour muy fen di fen di fen di fen di fen di fen ba ne la enregistré ma fekk na yow conversation yi ma nga mës a am ak moom yëpp enregistré ba pare ne bu ma waxaatee nga génne ko moom moo tiñal boppam bu ma waxaatee bu ma waxaatee si yow dimbale ma ngir yàlla yaay sama grand frère yaay sama lii bu ma nam may waxati ci yow waat ay waatam. waxee loolu warul tax mu génne ko. il faut mu génnee ko nit danga nga koy tiñal gis nga fii Sénégal maslaa moo fi jeex maslaa moo tax tëkk bi avancé wul parce que maslaa yëfi naafeq la nit buy def yëfi naafeq da nga koy wan ne naafeq nga fii naafeq yi ñoo fi bëri. mu mel ni que bokk na seen adversaire politique yi li ñuy wax mooy mooy ren moom jaraa élection moom àgg nañ fa rek mooy ñàkk di mairie bi parce que donc doxatul ak euh, PDS ku ne xam na ne Pikine Nord PDS dafay am doole. waaw mais tamit loolu seen xalaat lañ wax rek mais jaraa jaraa même bu dul parti parti politique waa Pikine moom lañ bëgg loolu na ko nit ñi xam Pikine si ci boppam ñoom jaraa lañ bëgg ak parti bu mu mën a bokk suñu xamee ne jaraa mi ngi ci parti boobu rek day dem dañ koy dañ koy votel waaw parce que moom lañ bëgg moom lañ moom lañ wóolu moom moo leen wan li tax ñu wóolu ko. Mhm. kon daal am nga confiance lool que ne bu suba bu nekkoon élection yi suba suba suba jaraa mooy nekkaat maire. suba mu dóor leen ku ñu wadd ñoom ñëpp du seen morom. Hmm? billaay wallaay maa weese la at yeneen boxeurs yi rek bokkuñu. billaay wallaay. Mhm. mu mel ni li ñu mayoon ci waxtu ji li ñu mayoon ci waxtu na Pape Thiam lan dalaloon seen émission coowal politique macha allah nit ku baax oyof xëy na émission bi moo laaj yi ngeen gis nii rek waaye wax dëgg yàlla nit ku baax la ñu ngi koy remercier bu baax parce que dañ ko war rek mu disponible macha allah Pape lan ngay ñi nga xam ñu ngi seetaan sbtmedia.com waaw li may tàggoo mooy di leen santaat di leen gërëm di jéggalu bu fekkee dama fi wax wax bu dépassé di leen wax ne bëggoon lépp baax at lépp rafet moo taxoon ñu toog pour indi ay leeral waxtaan ak suñu waa commune suñu waa askan di leen respecté bu baax a baax a baax di kontaan ci SBT di leen wax ne seen site bi yàlla na leen ba nekk télé bu mag a mag a mag bu ñuy suivre ci sur le plan international jaajëf. ban message ngay am booy lancer pour Pikinois yi Pikine Nord rawat na Pikinois yëpp. waaw Pikinois yi li ma leen di lancer mooy sur le plan ci ci élection locale yi di ñëw dama bëgg ñu delloo njukkal sama maire bi di Amadou Diarra jox ko ville. parce que dépassé na ay communes yi ñu jàpp di ko jéem waaw di ko ci yàpp walla ñu ko ci ñuy xëccoog moom léegi dimension dimension nationale wala départementale la war a nekk waaw mairie ville lañ soxla ma leen di wax ne bu fekkee bëgg ngeen ville de Pikine émerger ah, ba envier Dakar wala ci yeneen villes yi gën a mag ci ci Afrique bi bu ñu joxee Amadou Diarra mën na ko xam naa ne am na potentiel bi. Mhm. jërëjëf jaajëf merci beaucoup.